barki Alaaji Fàllu mbake gëm sa bop la votel sa du man rek ne maro suma maye mayee ñaar su ma indilee ñaari kaar la barki do mo dul ko mo fess del del del del non violence nak gelawar mom bu dee gelawar xola bu kenn tit barki borom tuwa lañ bëgg dañ koy am mais das fanaanel yi ngeen denc seen poste ni carte d'identité yi dama bëgg nak jour ji bi xoolal Maodo moo xam moom fii kan yéen doomu koñ bi nii man na la bu nexa ñun joxo ñaari barki borom tuwa dama ko duuy ba mu fess del del del modo message bi may wax tey jii nii bul am dara dara dara looy tiit bu fekkee fii nooy na fii moom sawaay buñ ci am dara lu ñuy tiit bu dee fii rek ci ASC Guelwaar moom sawaay ah mobilisation bi def saw dama ci xaw a maanaam dañ ko xaw a yéex a yëgle mais kon tey ji heure bi kon kenn war foon kenn war foon xaj mais bu dee ci Guelwaar gi rek président Maodo Malick Mbaye barki borom Touba bul am dara looy tiit fi lepp noy la jour ji moom yéen ñu tok fi ne xolal waxam la ñu tok fi ni rek sa wa yo das fanaan na li ni 40 tay dañ ko teel a récupéré yi Maodo malik mbay lañuy votel fi ni Maodo kan papa nañ mobiliser fi ci quartier bi ñi ñepp képp kuy supporteelu Guelwaar bo wooteelul Benno boko yakar way bo xol nga baña a taxaw teenay Guelwaar sa na taxaw na nga ci sa way fi ñun ku ñu yegg ñu yegg la ku ñu yeggul yeggu ñu la 500000 du 100 francs yow nit ku yëkkati 500000 francs jox lako nañ waxante deug nday Fatam yaama gëna xam man dama far man kuma yegg ma yegg la ñun ay bafa la ñu lañ fay cant gi conférence bi pap papaan defone dañ fay taxaw def cant gi ñu paré sa way yëkëti bâche bek tante bek chaise yeeg lepp defal ñuko ko Baay Faal yi tamit ñu wax ci ñu Baay Faal yi tamit ñu wax ben yobante Maodo Baay Faal yi rajo yi nga jàppoo ñu ci rek fi mom bu dé fi la rek président sa da ngeen ni to xamna kan moy sëriñ man dama far man gelawar la faral tay ci waxu gelawar laay wax mais tay damay politique tamit à part aujourd'hui man Maodo ak yéen belai koñ bi lay waxal kep ku fi nek ci bir koñ bi carte d'identité yi kep ku ko ci yologul dem ngeen jël ko Maodo la ñuy voté man sama soxnaa ngi day musul genn mané ko da ngay genn tay parce que tay Maodo mo fi wara ñew ñëw non nañu man ku xam sama soxna xamni bari wul tank fi ci bir koñ bi mané ko tay da ngay déranger wu dangay ñëw Maodo affaire bi Maodo la ca wàcca cha kenn du ko dindi Maodo président Maodo bu am dara looy tiit barki borom Touba bu dee ci côté bii nii nii nii lay wax ni ay comme Idriss Seck li ñu doon battre fii Maodo kan bi nii Moussa mi ngi koy wax léegi nii bu dee fii nii ren jii nii barki borom Touba bul am dara dara dara dara looy tiit billahi wallahi taalahi benn boo ko yaakaar bii bu gajewul fii Maodo kan bii nii ren jii nii ci public bi gën a waar amee bu la neex moo romate mu nuyu wala président Serge yow mu neex éliminé ma poste bi man daaw lu ma gëm man sama suma deet mooy gelawaar la man gelawaar laa gëm je suis fier d'être un gelawaar pur et dur mooy daw suma yaram Manam, comme ñu toog ni ay maam sa yii nii ak booy yu toog nii dans fanaan na un dañ ko teel a génne yi jour ji bi maa ma ñaari kaar rek ba cinq kaar ma duy ko ba mu fees dell dell fii ci digg intersection bi fii nii ñu jubal moo dakan dañ koy gagné far force am na paa bu toog fee léegi nii dafa bëggoon a xam sax moom Idrissa Seck la di voter waa Abdoulaye Wade la mais fii nii ci biir koñ bi fii nooy na ca wàccaa caa bul am dara looy ci nag président Maodo bu dee fii moom ci AG bii nii nii may wax ak yow nii nii xoolal xam nga sànq bi nga nekkee njaago yi fële maa ngi fa ba ci njaago yi laa la waatal nii nii nii ñun xam nga ñun am na lu sa grand bi wax nii ñu am lu ñu yàlla may fii koñ bi ni doo xam ne musulman wala chrétien la boo ci ngalax bu jotee sa seen événement yi nga xam ni ñun dëkkandoo ñu nekkal fii ñu ay borom baax njaago yi séeréer si olof yi ñëpp et cetera ñëpp carte yi xolal bennoo Bokk Yaakaar la grâce ak Maodo Malick mbay Maodo bu la neexee tëddal ne la bu ma xola su ma sayoon tey nii sa xola boo paree fii ni demal dallu bala 30 rek fii lépp nooy na amul am dara looy tiit am naa ko wax man waaw di jégalu nag